daje li tey ci ndigalu maire ànd ci ak conseil municipal bi mu tegoon liggéey bi yëpp ci loxo Serigne Sidi Cheikhouna ñu ànd ci ak moom ak euh, chef de bureau bi yore affaire hippomobile ñu yaatal waxtaan wi également wax ci ak tous les acteurs ba mu jur tey lancement bi ñu war a lancer pour charrette yi daw biir Touba commencé am plaque donc tey loolu moo ñu fi dajale. ñu invité woon ci waxtaan wi police ak gendarmerie ak sapeur pompier ñu les forces de défense et de sécurité nga xam ne gi ñooree kaaraange dëkk bi guddi ak bëccëg yore ay kaaraange bi am ci kaw tali bi ñoom également jël nañ fi kàddu wax ci liñ ci war a wax ñun ñëpp lu ko ci biir jataay bi également invité nañ fi ñi yor wàllu sécurité routière nekk suñuy partenaire également di liggéey ci kaaraange yoon teew nañ fi waxtaan également waxtaan wu rafet bu ñëpp rafetlu waa commission transport nekk ay conseil fii ci commune bi également jël nañ kàddu rafet lu jataay bi de même que ki nga xam ne ki moo jëte transport ci biir Touba yàlla dogal également mu jiite ko au plan national muy président kay Kadiabal na fi ndawam les acteurs directs ñi xam ne bi ñoom ñoo jiite association yi ñoom ñëpp ñu ngi fi toog ñi ci fédération ñoom ñu ngi fi toog beddew ñi ci kenn ñoom ñëpp ils sont d'égale dignité jël nañ fi kàddu waxtaan nañu ak ñoom dégg nañ leen li fi joti tënku na ci waxtaan mooy ñoom ñëpp tous les acteurs ñu participé ci réunion bi rafet lañu rafetlu nañu tey liggéey bi ñu war a sumb te ñoom ñëpp ku nekk joxe ci engagement xam ne liggéey boobu defaloo ko kenn ku nekk sa bopp nga koy defaral te njariñu dëkk bi dong tax ñu teg ko gannaaw bañ ci amee ndigalu kilifa yi tàmbali ko sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér mais teg ko ci également loi yi ak charte yi dox ci réew mi muy loi ak règlement yi ndax lii ñu war a doxal dafa tënk ci benn arrêté interministériel boo xam ne bii dañ ko war a appliqué dale ko ci charrette yëpp dañoo am plaque ci tënk rek ma jukki ci charrette yëpp dañoo am plaque ba kii dawal charrette bi également dafa am âge minimum bu nga xam ne war na ko war na ko am donc lépp jëm ci également ci responsabilité plaque yi jubluwaay bi mooy identifier charrette yi xam ñen ñoo koy dawal mu am pàcc bu am solo nag ci wàllu sécurité ndax tey na am na charte yu bëree baree bëri ñu ëpp ci yéen ñu ngi liggéey teg ko ci yoon teg ko ci charte nekk ay borom kër wàcc liggéey jàmm yàlla lañu xam mais am na ñoo xam ne bii ci leneen lañu nekk dañuy xaar ba ñëpp tëdd ñu jël seen charrette di ci def na ko sulul noonu walla it ñu jël seen charrette di ci gum dana kàmm heure bu ñu amee occasion def ci safaan loolu nag li koy xeex mooy ñëpp am plaque d'identification pour ne pas dire plaque d'immatriculation bu ko defee registre bi ñu def ko ci lu ci benn benn mu nekk biir mairie yi ñu xam kan moo moom pass wi ak kan moo koy dawal xam ne tey bu ci jéyee amee yàlla tere ñu mën a xam responsable kan moo ci engagé wu parce que lu amul lu responsable kenn engagé wul moom daanaka lay nuru pagaille wala anarchie donc loolu déjà dafay revaloriser métier mi nga xam ne bii yéen yéen a ko yor ñu ànd ci ak yéen ci liggéey ci wàllu commune waaw nous serons très humains sans être laxistes fermes sans être tyranniques nañ ci ànd ak yërmande mais toujours ñu am point de mire les textes les lois et les règlements parce que police aussi mënoo leen lay sant liggéey mm-hmm. sant ko gendarmerie te ñoxor njaay gu nekk nga woo ko ne kooku de bàyyi leen ko waaw loolu it dafay am day gàllankoor dina am moment wax ne bii dañuy bàyyi nag ñoom ñu doxal waaw parce que mënuñu aussi nit ki nga sant ko liggéey ba pare ne ko liggéey texte la mi ngi nii dama bëgg ñu appliqué ko ci Touba chaque demi nga woo ko ne ko kooku ngeen téye bàyyi leen ko mu dem. ëllëg ku ko ci def gàddul nit bind turam. turu fasam ci sa tur parce que nee na la mënu maa dem wala maa benn lañ wala sama xarit nga ëllëg lu ci am ci conséquence civile wala conséquence pénale yaa koy gàddu loolu aussi il faut que ça soit très clair parce que ñun dañoo tàmmul yóbbante walla noonoo garal kii mën na ma koo gérer ku ko ci def ëllëg gàddul nit fasam bind ko ci sa turu bopp wala ab jockey bind turu boppam ci ñu maa yore fas yu nangam te moomu ko yoru ko ëllëg ku ci def débat police wala gendarmerie kooku lay teg loxo mu ngi mën rek nga jël puce bu jàmm puce dem ubbi ko ci turu nit wala nga abonné ko nit ba pare may ko mu def ci dégâts. Hmm, dañ ciy sant maire yi mais day doon loo xam ni eh, lu nu yàgg jàmbat la lu nu yàgg a la ndaxte boo xoolee Touba ñu naan la dix huit mille chevaux ñoo fi nekk ay fas dix huit mille lañ mbaam mi ñun la trente mille lañ te benn mënu ci am benn identification boo xam ne lépp lu mën a xew ci saret boo mën a dugg doo xam foo koy wëree kon loolu dafa mel ni lu nu amal njariñ la loo xam ni ñun fu ñu ko déggee rek danoo war na daw ba daanu waruñu sax ñu di xaar ñu ne jox ay délai ak i dat ndax day doon loo xam ni nit ki bu jubee di liggéey lépp lu koy aar lu ne rek daa war saa su jógee di ca dox di ci jëm lii nag moom daa doon loo xam ne lu nu bëgg la lu nu rafetlu la lu nu yàgg laaj la njariñ bi benn bi mooy ki nga xam ne yàlla dogal na identifié na ab saretam identification bi jamono yi nuy commencé di war a régler tableau yi bi ñëwee fii ci mairie ñu di ci waxtaan man maa ne leen recensé nañ fi ay tableau séddale fi ay tableau benn mosu ci am njëriñ léegi nag pour ñu mën a am tableau yu am njëriñ da ngeen di mën a am ab bu ngeen mën a dugal tableau yi kii jël ki moom tableau bi indi carte d'identité ak adresse am ak numéro téléphone am ñu door koo jox plaque kooku bu boobaa plaque am dana saa suñ ko soxlaa rek dan boo gisee numéro bi rek saa soo ko tappee ci lu mu mën di doon rek da nga mën a xam ni kii moom moom plaque bi loolu njariñ la ci ki moom saret bi njariñ la ci client bi dugg ci sat bi bu ci wàccee dara njariñ la ci ki nga xam ne dafa yor sat bi dem ba ci yoon yàlla dogal am ndogal am ci moom mu évaluer wala mu am jafe-jafe te mënuñoo xam kii kan la kon njariñ yi bari na lool mais nag li ëpp ci njariñ la day delluwaat ci borom saret bi ndax dana tax ki ne ci secteur bi te bokku ci ñu mën ko cee génne lii ñu commencé wax ci xale yi nga xam ne moom la Touba Mbacké gépp di jàmbat su boobaa dana deñ ndax moins de sept ans ñooy dawal fii ay saret léegi ak moins de huit ans mënuñu ci saret yi dara accident toujours parce que ko xam ne yow li nga yor loo ko dara saa soo ko yoree teg ko ci circulation bi yaa bëgg a accident ndax fi ñu toll bari na borom oto yoo xam ne li tax duñ def accident mooy saa suñ jubeeb saret gone yor ko ñu taxaw wala ñu xaar ba mu jàll ñu ki nga xam ne gan la fi te loolu mën naa def accident ci loolu waaye ñi dëkk ci Touba moom xam na ne gone gu yorub saret ko jubee bàyyi ko fi mais bari na fi garas yoo xam ne nag moom ay gone nekkatu fa léegi li ëpp ci gone yi daanaka mooy saret yi nga xam ni ne bokkuñu fenn comme ni ñu ko waxee fii ci réunion bi pexe yi moom day yomb ndax bu fekkee yow gaaraas nga yor immatriculé sa saret yëpp ki ci dëkk bi te amul immatriculation yomb naa jàpp ñoom saa su police wàccee ci terrain bi rek mu saafaraw ndax ginnaaw tableau mooy tax ñu xam la boo amul tableau bi ki gis rek lépp lu mu doon jiñaate man na la koo jiñ kon ki jub dana dem wuti tablo wala mu dem teb gaarasam ñu wutal ko tableau loolu mooy li wér dégg nga li la wax lan ni la durant li tàmbali tey ba le ba le 30 juin képp ku fi am ku fi amul tableau le premier juillet saa suñ dajegew dana la immobiliser kon déjà képp ku ko dégg rek mën ngaa dem wuti tableau tableau bi nag boo dégg ñu la wax da ko subventionné parce que bu ko doon jaayee li muy jar dana cher mais daf ko subventionné ba bàyyi borom sar ni mën ko jël 1000 francs kon loolu ndimbal la ci ñun ndax xam nañ suñu néew doole mais nag loolu bu tax du tax ñu yaakaar ni ñun danoo war toog rek jàpp suñu bopp lu ñu sant ñu ni mënuñu ko nit ki lu mu bu doon tableau d'immatriculation oto yaa koy wutali sa bopp te boo demee yaay def say frais door a wut dox say investigation kon loolu lépp bu amee ñu ngi ñuy dimbale te lépp lu ñuy def nag dañuy woo waxtaan ceeg ñun ba tënk ndax lii man conseil municipal la maay ki ku njëkk a relancé maay ki ku njëkk a demandé pour ñu identifier saret yi teg leen ci kaw yoon te loolu maire rek ko war a def maire rek lañ ko war a def plaque bi moom plaque bi moom du weesu nga indi sa carte d'identité soo indee sa carte d'identité ñu jël ko ak sa numéro téléphone ndax carte d'identité adresse da aussi nga wax garas bi ngay daw ndax nag bu fekkee da jóge ci garas boo ñëwee ñu identifier la da ngay joxe sa carte d'identité joxe sa numéro téléphone joxe adresse su garas bi ngay daw ak adresse bu fa nga dëkk loolu lépp ñu dugal ko ci biir su boobaa lu man a xew ëllëg da nga yomb a gis